El Hadji Ahmed Aidara diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall day directeur fa ne wér nañ ngànnaay day sa sala fa ba waaw dama ne leen signé nañ ko nag ci diwaanu gi dégg Abdoulaye Wade day waaw lépp lu xeetoon ak wàllu fit naka day nee na ba na ko waaye xeex ba day continuer day eh. waaye ci jàmm na kon la koy lal maanaam lutte pacifique la waaw waaye nag moom xamal na ay militant day te ay militant am nag mere nañu président Macky Sall la Abdoulaye Wade daal xamal na ne leen dëddee leen njaxaanaay jàppale ma benn candidat laa la wax te bàyyi journée ba day ca diwaanum Ndande la koy doore ginnaaw nga nag danee dem ca diwaanu Kébémer ak Louga danee dem ca Ndar géej ak ca diwaanu Podor ak Matam Abdoulaye Wade danee dem ca diwaanu Kaolack ak ca diwaanu Touba le quotidien yéene kaay ne waxtaan bi nga xam ne kon dañ ko doon waxtaan ci diwaanu Guinée ak Alpha Condé day waaw mbir ma lajj na échec la médiation ba mar di tali waaw dama ne la Abdoulaye Wade day fa mu nekkoon dugg fa ci wàllum sabotage ki lé éy way samba éy eh way samba waaye ci jàmm nee ne la koy lal de wàllum sabotage ba waaw ba noppi nag dana amal kon ab journée nationale yéene kaay ma jama jaa ngi ne di nga xam ne kon dañoo yaakaaroon ne Abdoulaye Wade bi ne day waaw dana soppeeku ah bu yeboo ñu dem toog ndax ki nga xam ne moom moo yor kàddu Abdoulaye Wade ga day maître El Hadji Amadou Sall waaw nee na taxawaay bi moom la Abdoulaye Wade taxaw day ngir élection doo am ci mim réew le vingt waaw dama ne la kon foofee la nekk ba léegi ni la wax li dama ne la PDS ah fa ñu ne ko duguñu fa laa la wax élection moo dul am ci mim réew te ñi wax nañ bëggoon ne bu Guinée mais te Sall yemu ca ndaxte avocat bi nee na dama ne ñi laajuñu dara soxlawuñu dara ci lu jëm ci wàllu médiation ay jubóole rapprochement diw ak diw jege nañoo ñeeg ñeeg ñeeg patiti patata bëggu gaa ngi ne waaye nag rajo kankal yi di wàllum rumeur gàddaay bi nga xam ne kon ñu ngi wax ne da ko def ca diwaanu Guinée gee waaw ak François Hollande ba ñu tudd kon ca najama ah maître El Hadji Amadou Sall nee na loolee nekkul dëgg man sax li may laajte mooy Karim Wade lan lay def ca Guinée François Hollande mës ta Dakar Times nee na ndaje am na de diggante Macky Sall ak procureur bu Qatar ah dama leen démb ci altine ji ca Thiès la ñu daje laa la wax campagne ba gaa ñaa nga ca loolu day moo dox suñu diggante élection présidentielle ya candidat bu ci nekk day am nga yaakaar looy ne ay gagné professeur Issa Sall day nee na premier tour day gagné élection yi président Macky Sall tamit nee na kenn mënu koo gën a gagné premier na la neex yow doon toog Ousmane Sonko day waaw nee na gis nga 2019 bii tool yi daal mooy nu Sénégal moomee boppam rek Idrissa Seck day waaw la ko dox ci mbooloo ca diwaanu Touba gale mën na la ëpp na la ilaha illallah Touba kay ah mi quotidien ne sa sek démb premier tour terminé yéene kaay ne ko may ma ma yegali may ma ma yegali dama ne la cortège bu orange ba day orange idi 2019 waaw benn waay yuux ca kaw ne Idrissa Seck daal bés Serigne Touba la kenn mënu koo teree gagné premier tour uh-huh. waaw waaw dama la mbooloo may yuux ca kaw naan ma kii ci suuf idi ci kaw idi ci kaw maa kii ci suuf du samay kaddu de waa Touba ñoo doon wax professeur Issa Sall ci tribune yéene kaay dee la mu wax waaw nee na Macky Sall mi la ko ko joxaat réew mi ah walaay mu dugal ko ci guta ëllëgu lëndëm la ñu dem Ousmane Sonko ci tribune yéene ne dëgg la ñun de ay milliards parce que nekkuñu ay sàcc de li ñuy yor walaay moo ëpp ay milliards fuuf ndax ñi ngee doomu aadama yi seen taxawaay détermination ñi ngee seen kay man Ousmane li Idrissa Seck de déedéet parce que Macky ngay gaaral nee na yow ab coalition boo xam ne day ay nit yu rëkkale ñooñu mënuñu maa tiital man Macky yéene kaa gi ne Ousmane Sonko day waaw dañu ko attaqué kon te bokk jamee ata arelao te Fuuta waaw te Tambacounda day Sara Niang responsable APR la nee na responsable APR yi day ñooy sacrifier jeunesse bi ah, di 2019 mar di ay oto yoo xam la Ablaye Sow affaire Kër Massar waaw dañu ko blessé ca bopp mardi daal ak yeneen i nit sax Macky Sall ci exclusive yéene kaay ne lii gàtte la sax coalition bi ñoo xam ne dañ leen a rëkkale ak ñoo xam ne dañ leen a baaloo may leen ñu jàll repêché Macky Sall kay dem ba xas ne Idrissa Seck de ak maître Madické Niang ak Fatou ak Bougane Gueye Dany Alhaji Malick Gakou Atepa ak ñeneen ñëpp kay Macky Sall ne kenn mënuma xañ premier tour waaye di Ablaye Dieye bu Thiès ci évidence waaw nee na Thiès te liñ ci def ba Kiré Mbo Ndiaye waaw mësta am ci tund wi laa la wax termine yéene kaay ne Babacar Lo Ndiaye day waaw waatee na kaw nag keroog booba président daal di jaar waaw laas ne waaye fitna ba yeewoo ti na dee waaye njuuma yi ay njuuma yi fi nay jugati nañ sur quotidien en tout cas juróom benn fan ci dese eh, ngir convaincre yeey askan wi critique yéene kaay leen Dakar ba lieu ba la laa ba daaj ka fidaaw source aane Maître Abdoulaye Wade ak PDS day eh, tey la ñuy door seen campagne ba ngir daal réew mi insurrection ardi Italie bordel bi kay léegi mu commence yéene kaay gi ne Macky Sall day agressé de Ousmane Sonko ja fuuta de moo taxee de Ousmane Sonko soos ko soosaat ko laa la wax parce que Ousmane Sonko nee na Macky Sall de xamee nañ ko ñetti yëf Macky Sall taxawaayu mbër lañ dëkk taxawee pañ pañ pañ a wàccaca ñu ne deen ni Sall di fees day wëndeelu ñu ne Sall léegi Usain Bolt la ma ngay athlète di course di daw lii mooy wane ne Macky mii amul programme man Ousmane Sonko maa ko wax ñii dal Pastef yi amu ca Sonko nee na Macky Sall nee moom moom maatam yow nga mooma te amoo te nga mooy seen benn ñaar ma soo faa dara kooku nan la mënee moom maatam yéene kaa gi ne Barthélémy Dias day day tëreewul njaaxaanaay neutre jamais parce que Médina nag mës ta tëree njaaxaanaay Medina kay ah eh, ñu ngi ci idi 2019 kay orange ba fu Khalifa Sall de bala Medina ne jërëjëf waa Medina box boobu di ne Alaaji Malick Gakou day waaw jox na Idrissa Seck ndaw premier tour cinquante six pour cent barke daf suur lay Gakou de sondage bu wóoru ko def ñuy tal ginnaaw baat yi yemu ca ndaxte de gis nga askan woo xam ne kon dañoo taxaw ngir wàllum changement dara mënu leen a téye laa la wax lees ko yéene kaay ne en tout cas waa PUR day waaw fukk ak ñeenti ca ñoom jam nañ leen baaraamu tuuma ñeenti ca ñoom lañ leen di toppee mooy faat bakkan rey nit fukk ak ñaar ca ñoom mujj nañ leen a bàyyi ñu ñi mim réew day ku fi amul bàjjen wala nijaay tey nga dee may laaj dong de may laaj dong professeur Issa Sall bu amul woon kaaraange sécurité kon heure bi fu mu jëm boo ko xamee ma ne la alaaji tëjal Samsung bi leen di ñaax ngeen télécharger application Samsung authentique